الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi ci bëccëg yu mujj ci weeru baraxlu muy Shaabaan su ko defee xam ngeen ne Shaabaan bu jeexee dafa am weer bu ci tegu muy Ramadan Ramadan nag buñ ko tuddee xel yépp danañ dem ci koor waaye li ci jara fàttali rek mooy ñooñu di ragal weeru koor ñooñu nga xam ne jàpp nañ koor daf leen di fitnaal daf leen di sonal ñu leen di fàttali di leen wax ne mbokk yi koor du mbugal koor du mbugal koor jaamu yàlla la boo xam ne borom bi tabaraka wa taala moonu ko sant mu nekk farata kon sunu laaj mooy ala man yajibu sawm kan moo war a woor juróom-benn nit a ngi nii ñoo xam ne wala juróom-benn mbir a ngi nii yoo xam ne dafa tegu ci kaw jullit bi melokaan yii may bëgg a wax bu dajee ci moom na yëg ne dafa war a woor waaye gis nga fi ñu toll nii di ko préparer di nga gis léeg-léeg ci ay nit yu jàpp ne koor da leen di fat dinañ commencé provoquer ay feebar am na ci ñun ñoo xam ne sax dañuy dem di jébbalu ji ci quelque part pour bañ a woor boo leen waxee ñu ne non ñun fee lañ bokk ñun duñ woor ci islam moom kuy jullit bañ a woor rek yéeféer la ci islam nga nekk ab jullit fekke weeru koor amoo benn ngant soo lankee bañ a woor rek ab yéeféer nga da ngaa murtat ak foo ko layee nag ak foo ko layee laa wax ab yéeféer nga su ba fekkee da ngaa bañ a woor mi ngi mel ne nga bañ a julli rek ndax ñun ñëpp xam nañ ne ponk lislaam juróom la li yeenu lislaam ba lislaam nekk lislaam juróomi mbir la ku ci bàyyi benn yéeféer la kon nanu def loolu suñu bopp bu ñu àdduna jay beneen bi mooy fi ñuy làqatu ji wala ñi ñuy làq ci seen ginnaaw duñu dara ci kanamu yàlla fi ñuy làqatu ji laa wax di bañ a woor wala ci ñi ñuy làqatu di bañ a woor duñu dara ci kanamu yàlla yàlla mooy buur yàllaay boroom yàllaa santaane kon kan ngay xool kontaanteem kan ngay xool mbégteem jàng nañ ci Laxdari sëriñ bi ba mu ñu doon tënkal aaya ba la fa dugal wallahu wa rasuluhu ahaq an yardu in kuntum muminin su fekkee gëm ngeen yàlla gëm ngeen yonent yàlla ak yonent ñoo gën a am kontante ci yéen ñoo gën a yey da ngaa bëgg kenn kontaan yàlla ak yonent moo ci gën a yey kon yajibu adaa'u sawm ala kulli muslim képp kuy jullit woor weeru koor daf laa war maadaama anta muslim fekk jullit nga suñ nee jullit am na ku ñu dàq am na ku ñu seppi am na ku ñu génne kan la mooy alkaafir yéeféer yéeféer du woor wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur yéeféer lépp lu mu def perte dong la ci jële du am tiyaaba kon jullit moo war a woor yow jullit nga gëm nga ne yàlla kenn la gëm nga ne muhammad yàllaa ko yónni gëm nga alquran mooy téere bi bàyyeekoo ci yàlla gëm nga islaam mooy sa diine weeru koor teru na da ngaa war a woor amul foo bokk nag léeg-léeg nga de kenn mu ne man dafa am fu ma bokk moo tax du ma woor déedéet da nga naan yéeféer nga moo tax nga bañ a woor waaye amul fu ma bokk ndax yéeféer rek moo dul woor dafa leer bu ñu jógee ñu xooli texte yi kan lañ wax ku dul woor yajib ala kulli muslim jullit waaye jullit boobu tamit pour mu woor dafa am leneen luy teguwaat ci moom mu wooraat baalig foora mesure nit mën naa nekk jullit waaye du woor de parce que mesureul waaye boo nekkee jullit mesure ci l'islam da ngaa war a woor loolu tamit beneen mandarga la kon ñaara ngoog jullit dafa war a woor mesure kan moo mesure ci l'islam man huwa albaalig kan mooy ki mesure ci l'islam mooy bu dee góor léeg-léeg sax nga dégg ulama u sharia ñu doon tënk ci jamono ci ay téere soo amee fukki at ak juróom-ñett léegi foofu nekkatul nattukaay ndax borom 11 ans yaa ngi ëmbal borom 10 ans yaa ngi ëmb da ngay gis xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci 14 ans wala 15 ans ëmb kon nekkatul foofu nattukaay nattukaay yi ci sharia bu dee góor na naqam am kawar na gént sëy âge bu mu mën a am mesure na dafa war a julli dafa war a woor su dee jigéen su gisee baax rek kallaf na li war ndeyam ak baayam ci lislaam ñoo ko war kon loolu moom mooy mandarga yuy wane ne waa ji wala ndaw si war naa woor jullit la kallafe na mooy mesure na nekkul xale bu ndaw ba kenn di ko génne ci mbooloo moomu mbokk yi ñetteel ci mandarga yi nga xam ne dafa war a wan ne jullit bi dafa war a woor ginnaaw ba mu nekkee jullit majeur mooy aaqil dafa am xel suñu waxee ko am xel am na ku ñu génne mooy dof laa diinu liman laa aqla la ku amul xel amoo diine al majnun rufiya anhul qalam ku dof génne nañ la ci lislaam xalima gi yëkkatiku na kenn du la bindal bakkaar lu dul nga wér kon dof du woor jullit bu majeur bu am xel aqil kooku lañ wax ne moom la weeru koor nekk ci moom farata gis ngeen ne xel jumtukaay la boo xam ne yàlla moo ko defal jaam pour mu mën a ràññee moo tax borom xam-xam yi ba ñuy wax ki war a jaamu yàlla ñu ne mooy ki am xel ndax ku amul xel moom sa diine du baax da ngay rajaxe rek di dem looloo tax ñu ne ki war a woor ginnaaw ba mu nekkee jullit mesure ñetteelu xàmmekaay buñ ko war a xàmmee mu woor mooy na am xel ñeenteel mooy qaadir na ko attan na attan koor benn waaye ngi nii jullit la mesure na am na xel mais attanul koor lu tax attanul koor dafa feebar lu tax attanutul koor dafa màgget lu tax attanul koor day tukki te bu fekkee yi daje na kon waa ji du woor kon li tax nga war a woor mooy attanal koor fi muy tàmbalee ci fajar ba timis di jot ñuy nodd na nga ko fi mën yow julit bi bul am benn ngant ci ngant yi nga xam ne moom mooy tax yow doo mën a woor kon boo nekkee julit am xel nekk ku meseur attan koor waaye des na beneen mandarga ba tey buy wane ne ku mel ni dafa war a woor mooy muqiim benn waaye ngi ni boo xam ne jullit la meseur na am na xel mën naa woor waaye du woor de lu tax parce que musaafir la du woor kuy tukki du woor loolu moo tax ñu ne muqiim dafay bañ a tukki ndax kuy tukki kooku dañ kaa jëndeel ngant du woor lu dul ba mu yegg bu yeggee ba def fa mu jëm ñetti fan dafay matal julli di matal koor léeg-léeg nag nga gis ci ñun ay nit ñoo xam ne dañuy daw di uti ngant li ma waxoon sànq ah koor gaa ngi waaj a ñëw de àll bu ni mu tàngee xaaral ma daw dem Dakar nga ñëw ne doo woor nga ñëw dootoo julli ji jàkk nga ñëw di wàññi julli rek continuer di dem te xam ngeen ulama yi lan lañ maye ci ku tukki mu wàññi julli guddi ak bëccëg ñetti fan su paasee dafa war a mat beneen bi waa joo xam ne dafay tukki tukki boo xam ne bu demee mu am foofu fukki at après ñibbi siwaat bu demee fukki at yi mu bu ko def fu mu nekk mu ne man de damaa tukki foo tukki def foofu dëkkuwaay dafa kër di fa liggéey di wàcc di xëy di gont foofu nga dëkk dëkkatoo fa nga bàyyee ko dëkkatoo fa nga bàyyee ko fa nga dëkk mooy fa nga nekk léegi sa kër nekk fa wala sa dëkkuwaay nekk fa wala sa liggéeyukaay nekk fa nga ëpp loo fay nekk foofu nga dëkk léegi dëkkatoo fee nga jóge loo tax gars yi bu ñu ñëwee fii sax bu ñuy ñibbi dañ naan maa ngi ñibbi ça veut dire que dëkkatoo fi kon da ngaa war a woor bu fekkee nag fan yi ngay def fii mën ngaa bañ a woor ba nga dellu kon bokk na ci melokaani ki wañ a woor ki bañ a woor mooy muqiim su fekkee ne muqiim nga rek da ngaa war a woor soo soo dëkkee tukki woo da ngaa war a woor bokk na ci beneen mandarga mooy xaalin na wéet ci gàkk-gàkk yi ngant yi benn waaye ngi nii boo xam ne jullit la mesure na am na xel am na kattan tukkiwul waaye du woor de lu tax dafa am ngant lan mooy ngant li dafa gis deret jigéen la kon du woor ndax jigéen deret yii di génn ci moom da koy tere woor bu gisee deretu mbaax du woor du julli waaye bu loolu jeexee day continuer koor gi su koor gi jeexee mu fay waaye julli gi du ko fay beneen mooy wasin day tax jigéen du woor moo tax ñu ne xaalin minal mawaani na wéet ci ngant yi koy teree woor su ko defee yii mooy mbir yi nga xam ne war na ci bépp jullit bu fekkee weeru koor yii dal sa kaw nga nattukaay yii ñu wax léegi yépp mat ci yow sëkk da ngaa war a woor bi ci njëkk mooy jullit nga mesure nga am nga xel mën ngaa woor tukki woo amoo benn ngant bu dee jigéen juróom benn mbir yi mbokk yi mooy awsaaf mooy melokaan yi nga xam ne bu dajee ci jullit bu góor ak bu jigéen dañoo war a woor aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله مبوكي تي يالا مبوكي نانيو يك ني كور جامو يالا لا كور اتعبد لله جامو كايو يالا لا لو ني جامو يالا لا يالا موي بور بي نو بeuغ bëggunoo jéggal ëllëg yowmal qiyaam bëggunoo baal bëgga ñun ñu am kontanteem moo tax mu sant nu nan ko def bu ñu jël koor muy mbugal bu ñu jël koor def ko muy coono fi mu nekk ni di nga dégg suba nga dégg yenn julit yu fënax yi naan tey mooy dernier samedi foog ma toji foog ma nangami dernier samedi allahu akbar waaw boo demee dernière boobu nga dee fa looy wax borom bi boo demee dernière sortie nga lab boo demee dernière soirée nga dee fa lan ngay wax borom bi nanu delloo si sunu xel ñu xam ne koor li ciy xéewal wallahi mbindee fi yàlla yi ci kaw suuf dañoo yàkkam ci koor ñëw doomu aadama rek ngay gis waaw weer wi ñaataa ci des ñu naa tey de la séntu bu jëkk démb rek am na ku ma ko wax weer wi tey la ñaata ma ne ko tey la 28 mu xool ma ci ak mu wax mu ne mais munuñu ko yokk ma ne ko kan moo koy yokk mais munuñu ko yokk ma ne ko kan la ñuy wëri pour mu yokk ko kan kan kan lañ koy wax fekkoon ne benn waay moo ko yore ñu dem ba këram ne ko fëgg ko suubee ñu ne ko waaw doo ko yokk waaye yàlla la waaw lan lañ ci yokk allahu akbar weer woo xam ne ay ngëneel bokk na ci ngëneel yi dañuy tëj bunti safara ubbi bunti aljanna yeew saytaane ba mu dëgër am malaaka taxaw di woote naan yéen defkatu lu baax yi profito leen allahu akbar ana defkatu lu baax yi góorgóorlu leen yonent bi nee na boo ci boo ci jaamoo yàlla ci naafila soo góorgóorloo ci yu baax yi farata lañ la koy fay farata bi boo ko defee juróom ñaar fukki farata lañ la koy fay mu mel ne tey bu doon aljuma ci weeru koor lañ nekk ñu julli aljuma mbokk yi xam ngeen ñaata tiyaaba la ñu am juróom ñaar fukki aljuma lañ julli bis boobu xoolal tiyaaba yu rëy yi soo ci jullee benn farata tisbaar ñu fay la ko juróom ñaar fukk boo ci saraxee ñu bindal la tiyaaba ku saraxe juróom ñaar fukki yoon waaw loolu nga nekk ci weer woowu pourtant bu ñu nee promotion am na tey crédit 100 pour cent nangam nangam ñëpp a yàkkamti waaw lu tax ñu ne promotion tiyaaba jot na gaa yi mer kanam yi lëndëm ñii ñëkk ñii tayal ñii découragé allahu akbar ñii di feebar feebarlu ñii dem bokk ji ci yenn kër yi dul woor allahu akbar lan moo ko fi jar koor jaamu yàlla la ataabudu lillah man de damay jaamu yàlla lan moo koy feeñal mooy bim saak anil akli wa shurbi damay bàyyi lekk bàyyi naan ak lépp lu jëm ci rapport sexuel diggante góor ak jigéen ma sori loolu waaye nag benn tomb moo ci des bu nu warul fàtte mooy bi niyati taabudi lillahi taala mooy loolu ngay def bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy lépp lu jëm ci mbirum góor ak jigéen nga bàyyi ko ñett yi bul ci yem de yéeneel ci sa xol ne yii ma bàyyi yow yàlla dama ko dama la koy jaamoo bi niyati taabut na nga yéene ne jaamu yàlla la su boobaa da ngay am woor waaye boo xëyee rek xëdd lekk naan dem julli ji yéene woo wooroo koor du bàyyi lekk bàyyi naan da nga yéene jaamu yàlla loolu tax ñu ne bu loo boo déggee weer yi feeñ na yéeneel ne da ngay woor weer wi yëpp guddi gu nekk soo naafilaa ba pare nga yéene ne damay woor suba nga yeesalaat yéene bi lii mooy koor nga nekk ci lii nga nekk ci lii góorgóorlu ci sàmm ci sa yaram sàmmal bët yi na woor sàmmal nopp sàmmal gémmiñ sàmmal loxo sàmmal tànk sàmmal bépp cër bu nekk ci yow nga lawaay bul xoo bul woor di déglu lu bon day woor koo xam dafa woor jël ay écouteur rek samp ci nopp yi di déglu musique musique dafa araamoon waaye ci koor la gën a araam nga woor bëgg a toog di seetaan ay film yoo xam ne leer la la ne xam nga ni lii day yàq sa koor nga toog rek wala ngay xool ay nit ñoo xam ne seen awra yaa ngi ci biti wooro ci déglu ci wax munoo woor ba pare toog di wax yenn wax yi munul nekk moo tax yonente alayhi salaatu wasalaam mi yàlla yónni woon ci ñun mu ne rubba saa'imin fa laysa lahu min siyaamihi illa al ju wal atash bëri na ku woor ba ngoon ñu ne yonent bi ah mu ne jëlewu ci lu dul xiif ak mar wala rek koor ni méttee yow jëlewoo ci lu dul xiif ak mar lu tax parce que da ngaa bàyyi lekk bàyyi naan rek waaye jaamoo yàlla ci ci des loolu tax boo wooree amal fulla garder sa koor bu la ko kenn yàqal yonent bi nee na ku ñëw ci yow sax di la provoqué ne ko inni saa'im inni imru'un saa'im man dama woor yam yamal foofu ci baat boobu man dama woor yamal foofu bul yokk bul yokk sax ñaar ndax da lay yàqal ne ko man dama woor jëla say daal dem waaye da ngay gis fii ku woor ne day dàqi koor damay dàqi koor ku ku woor dàq sa koor ku am gan dàq ko ndax am nga gan ku woor dàq koor gi amatoo koor di dëgg la su nit su xale bu góor wooree gàddu basangam ànd ak ay xale yu jigéen ñu tërërëri li utali géej wala utali wala wala wala wala nga woor toog ci grand place ne damay demee waaw fii de moom nañ toog fii ne dañuy demee ana sa koor tee ngeen dem ci jàkka yi tee ngeen déglu ju Qur'an tee ngeen déglu ju tafsir tee ngeen déglu ju fu ñuy waxtaane diine ndax ngeen yokku dem géej ak dem jàkka dem grand place ak dem jàkka déglu ju tafsir ndax dinañ ko tollale nañ leen delloo si waat suñu xel incha allah samedi dimanche samedi mooy seenu bu jëkk buñ gisee weer wi dañuy woor na ngeen yëg ne araam na ci ab julit ñu ne la weer wi feeñ na nga naan waa Sénégal gisuñu ko waa Sénégal moomuñu weer wi araam na ci ab julit Gàmbi gii Mali Mauritanie Maroc gis weer wi loo xam ne boo ko doon compter ñëpp a jàng dañuy nekk fii di farfarloo di jéem a topp ñoo xam ne seeni xam-xam ci charia demul fenn ñoo gën a tey ne ñun ak Maroc rawante wuñ sax trois heures de temps montre wax naa ko benn waaye mu ne non ci Sénégal sax ah mënuñoo ànd nekk benn ndax heure ma ne ko ci Sénégal sax bokkuñu heure bu ñuy julli heure bu ñuy ndogu sax bokkuñu ko ci Sénégal kon ñu nag ñeneen ñi mën nañoo bokk tey bu ñu doon dog fii koor jot rajo bi di joxe ne koor dog jot na dañ naan dog jot na ci Dakar eggéey leen baat bi seen xel dog jot na ci Dakar ak li ko wër ça veut dire que la njëkk passé na ñooñu dog nañ bu yàgg waaye Dakar ñu la seen heure dog jot noonu ñu bokkulee heure sax ci Dakar mais noonu la ci adduna bi tey la lan tey la ajjuma waa Màkka kañ lañ julli ajjuma wala waa Màkka démb lañ julli ajuma ñun tey ñu julli ajuma ah kon kay dañoo waroon bàyyi ba suba ñun ñu julli ajuma ah ak ndof weesul ñu ne la waa Màkka ngay julli wala ña ngay woor nga naan déedéet ñun de suba la. comme Arafat nga dégg ñu ne waa Màkka tey la ñuy tax Arafat nga dégg benn waay bu nekk Sénégal naan non Arafat waa Sénégal suba la fu ngeen amee Arafat anamu fan la nekk. loolu yëpp farfarloo la nañ dindi farfarloo suñu diine gis nga diine ay texte la soo ko jàngulee da ngay da ngay da ngay yàq rek. te soo ko jàngee aussi di farfarloo doo dem ma ne ak ndof weesuwul ñu ne ab jullit yàlla ne fa man shahida minkumu sahra falyasumu ku dégg weer yi feeñ na wooral aaya bu wér la mu ngi baxara aaya bu ne keng leer nañ yàlla ne ku dégg weer yi feeñ na wooral yow nga naan non waa ñun waa Sénégal ñun waa Sénégal suba la ñuy woor yéen waa Sénégal fan ngeen amee woor fan ngeen amee weer wala ñu ne weer yi feeñ na nga ne non non non ñun bokkuñ ci diggante Sénégal ak Gambie ñaari weer dafay mën a am diggante Sénégal ak Mauritanie Sénégal ak Mali Sénégal ak Guinée fan la ñu ñee mën a wooree ñun ñu toog di xool naan dañuy xaar suba nañ leen bàyyi farfarloo yi nañu farak suñu boroom nañu farak suñu diine bu ñuy far nañu farak yonent yàlla Muhammad mi ñu jàngale woon suumu li ru'yatihi waftaru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fakmilu iddata saabaan salasina yawman loolu la ñu yonent bi bàyyee woon yal na ñu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik allahumma fa nasaluka an taruddana ala dinika maraddan jamila اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
بسم الله